ɓeɗo jiinilam abide rafinda sofeyde fin harite mawɗo waaw man la dal boon dara non da ngay wax loola neex rek du dara champion la bëri lay def du dara si di xam lan albu de nanga def alaaji lekk rek nga fi nekkee lekk rek lekk rek man dama laal ci maajoor saala damaa laal ci sëtu sa Madior Saale Bigué. ah sàq laal ci Madior Saale Bigué su lekkut rek ma ngay naan. man seeg yow fi ngay waxee man déggee ma foofu. ma ne maa laal ci Madior Saale Bigué sama maam. waaw sàq mil ba mu jeex. su lekkul ma ngay naan. waaw ah, léegi sàq mil ba ah, tax na ngay wàññiwaat. général. sal di nga ma fii waxal maa lay moom nee na la daal laal ci maanaam Madior Sall bi moom moom bu lekkul rek ma ngay naan. mi ngi añ mi ngi añ. bu baax nga yitte waaw santaat bu wér a wér a wér. ngay lekk banaan. noonu la demee nag. relax noos. est xam nga ne yow Sénégal léegi ñoo la bëgg àdduna sax ñoo la bëgg. waaw loolu la yàlla def ñu pare nañ fi war a pare ànd ak waa écrit saa ñaambu ñëw jël ci suñu ndam yàlla na yàlla mottali. ngay bëree dafa bëri technique. maa ko technique. dafa moo la technique nga ne yaa ko bu baax na li ci kanam rawlu bët dina mel ne Alboury Samb Lawbe. dina xeex ak moom. nee naa la dina mel ne Alboury Samb Lawbe. Alboury Samb Lawbe nan la demee këllu të kullu kënn gafaka ah, fanaan ci xale jigéen yi séddoo puutur mi naan ci puux mi. dama ne la eh. xale yu jigéen bokku ci nag. dama ne la. ne woon na nga vierge gannaaw France xale jigéen. wax la dégg la laaj. du ngay si man. waaw foofu nga toll yow. mais ca kaw laa wax dama fekk ca kaw. ñu ne eh, ay élément taalanu. duñ dañuy tënk rek. léegi moo xoolaat. kan. ah li si kanam raw li ba dara xewul Youssou wayul waali tëggul. Alboury bëre. nañ toog seetaan rek. Alboury bu combat bi jeexee. nga ñëw ñu waxtaane ko lu ma waxoon naa dellu bu soobee aja ñu dem waaw naka yite yite yi mu ngi nii yow daa mel sa yaram bi dafa tayal de so da tayal de waaw yaram bi moo waye di rek yaram bi yaram bee waye di pour man da lekk ba suur quoi waaw lekk naa ba suur kay ah. waaw li nga lekk bëriwul baax na jàpp ne da wuyu ndeysaan Albouré ngi noonu ak géotechnique ñoom ñaar ñooy bëre le combat spécial ñaar ñi dañoo neex sànq géotechnique maa ngi wax ak moom ma ne ko sa yaram bi dafa mel dafa xaw a nagam mu ne ma damaa wayadi rek yaram bu wayadi rek Albouri moom maa ngi dem ci moom mu may wax ay wax yoo xamante ni man sama niveau tollul foofu ñaari mbër yu neex waaye dañuy bëre nag ñaari mbër yu neex waaye dañuy bëre mais géotechnique moom moo dàq ñëpp technique rek moo dàq ñëpp xool ko day dox mel ni day dox mel ni ku bëggul dox <laughs> Pape loolu mooy waxi day dox mel ni ku bëggul wax ku bëggul dox boog ndeysaan technique mi ngi nele sama séeréer bi ak a ñuul géotechnique ñuul nga de. Alboury ngi jokki jokki mook suñu ko bee caméraman moo sol mbaxane bu xonq bi jaw fara frère la ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay arbitre baa ngi wax ak ma ñoom Malick mi ngi wax ak ñoom Alboury dem na ci coacham euh, guy gi tamit mobilisé na waa Géejawaay Caaroy tey fair play tey amateur yi kontaan nañu si yéen lii lañu ñu bëgg ñëpp toog seetaan calmement amul xuloo amul xeex amul mbéjante amul xoosante amul mattante lépp si jàmm ak salaam fair play l'ambiance merci beaucoup à Sénégal Entertainment Group Mawo Cissé moo ko dirigé Mao Cissé merci pour la collaboration. ñaar ku ci nekk mi ngi jot jeu technique ak euh, Alboury arbitre bi woo leen ñoom ñaar arbitre woo leen ñoom ñaar mi ngi wax ak ñoom ñaar mi ngi leen di rappeler règlement bi waaw ñoom ñaar dañoo ës nag de ñoom ñaar dañoo ës de da wax bay bëgg a dee boo waxee ñoom ñu jaar nii e juutu na ko e juutu na ko jeu technique juutu na juutu na Alboury wàññeetu na ko astafurla <laughs> daf ko wan ginnaaw <laughs> ñoo ngi jégalu da wan ginnaaw Alboury toj na nen jeu technique nee ko xolaat mi may tooñ xoolal géotechnique mi ngi mel ni ku ci bëggul dara dara dara dara dara géotechnique jël na protège yi dugal na ko ndeysaan géotechnique ak Alboury Alboury moo wan ginnaaw arbit mi ngi wax ak assistant yi géotechnique da ma ngay fecc ndeysaan yaram bi dem na ci mbapat ba arbitre laaj na assistant yi ba xam pare nañu nee nañu waaw jeu technique ak la le combat spécial arbitre sifflé na 18 heures 49 tey combat teel na commencé teel naa jeex jeu technique Alboury ñoom ku nekk a ngi ñaan te arbitre sifflé de et eh, jeu technique tibb na suuf mel ni ku ngay wan wet Alboury moo féete à gauche waaw jeu technique moom mi ngi mel ni ku ci bëggul dara dagg na léew too bi Alboury mi ngi koy yoot Alboury moo ko sut moo ko sut moo ko ëpp jeu technique dagg na léew too bi def na déplacement latéral à gauche di arrière jeu technique mi ngi yàkkam yàkkamtiwu ci dara te jeu technique daa mel ni kuy woy nag xool ko day fecc day fec day def spectacle le spectacle de jeu technique xoolal mi ngi mel ni kuy takk téere yi Alboury bañ na dem Alboury mi ngi koy déglu joo dégg day ñaan na day jat pare na pare na bëre nag bëre joo dégg na Alboury joo dégg ni tànk day joor Alboury pied gauche day xeex ak moom moytul ma jeu technique de ndaanaan la de jeu technique ma ngay woy jeu technique day woy jeu technique day woy day mel ni kuy foo dagg na léewtoo bi déplacement latéral déplacement latéral déplacement latéral arbitre dagg na léewtoo bi ar bi leen di jox avertissement mi ngi wax ak jeu technique nee na ko dama bëgg nga bëre tama bàyyi ta nga bàyyi li ngay def ta nga bàyyi sa yëf ngay def arbitre sifflé na waat jeu technique Albouri le combat spécial diggante Reug Reug ak guy gi ñoom ñaar nee na ñu teg jeu technique ak Albouri Albouri mi ngi dox ci kawam Albouri mi ngi dox ci kawam jeu technique nee na tekk di ko déglu jeu technique dag dagg na léewtoo bi tibb na suuf Albouri mi ngi koy topp jeu technique mi ngi la ay jeu de jambe <laughs> waay waay waay jël na tànk boof na la boof na la daanu nga daanu nga wala boog jeexagul Alboury ak Jootechnique Jootechnique ñàpp na Jootechnique jàpp na ñàpp Alboury benn pied ci suuf Jootechnique benn tànk ci suuf ay waay laay lay lan laa xool leen arbitre bi génn nañ génn nañ saako premier ligne bi génn nañ ko Alboury Alboury mu faat na ko mi ngi koy door ay uppercut ci suuf waaye yéen waaye yéen lii lan la ma ngay door ay uppercut ci suuf géotechnique jàpp na ca saaku yi na nag ca saaku ya la ñu toog di bëre ma ngay rokos ay eh waay rokos ay eh waay rokos rokos yàgg na géotechnique téye na na combat bi lu xew lu xew léegi géotechnique day foo géotechnique da foo géotechnique da doon foo dafa mel ni kii Reug Reug pare na. technique wet lay bëree muy côté ndeyjoor bi Alboury jiital pied gauche Alboury moo ñu féete à gauche moo mel ni ku ñu wan ginnaaw Alboury li mu def ci biir ngemb gi sakkan na de waa kii lan la dugal ci biir gembam gi ah li nga boot ay Alboury li nga boot Alboury dem na côté droite jeu technique tëj na ko acc garde gauche di léewtoo ak ndeyjoor Alboury ak euh, jeu technique ñu ngi demee wet ar bi nee leen taxaw leen fii ngeen bëre ar bi nee na leen taxaw leen fii ngeen bëre taxaw leen ngeen bëre waayew te da gaaw jeu technique mooy arrière mais Albouri mooy diriger waaye Albouri la ma waxoon def nga ko de mais damay ragal jeu technique mi yëfi yëfi yëfi kàccoor lay jaay de tibb na suuf dafa dafay mbapat sànni na benn droite mais gëmu ko Albouri bu la dóoree da ngay wàcc bi na benn ñeeme Albouri biram benn ñeeme moo ñu wan ginnaaw jeu technique dafa mel ni kuy xeex jëlaat na ko Alboury jël na tànk defu ci dara joo Jootechnique génn na loxo ndey joor jàpp na Jootechnique génnaat na jàppante bi arrangé wu da lay boof tëdd na sa kaw <coughs> Alboury tëdd na ci kawam bal na ko mbaa ñoom ñoom bëgg nañ suuf si de ma ngi koy rokkosaat Jootechnique génnaat na Jootechnique dafa bëgg a nax Alboury da laa bëgg a nax de loxo ndey joor bi jàpp na. Alboury ngi door ay rokos bure bi jéemé day jéeme ndeysaan Alboury jàpp na loxo gauche di doore loxo ndeyjoor Joe Technique loxo ndeyjoor jàpp na Joe Technique dafay mbapat de kii mbër piir la mbër kaamin la àgg nañ suuf jógaat ndengeeñ nañ te ku nekk da ngaa ndengeeñ sa morom waaye Alboury ma ngay rokkos ak moom Alboury dóor yi muy dóor nii bu saxee jàpp du fa am de Alboury action technique ñaar ñi duñu ay duñu ay comédien de bu dañ wax lu neex waaye bu desee ci bëre bëre pire la ñuy def soo technique jàpp na Alboury jàpp na ñu ngi xeex ñoom ñaar ya xeex ñoom ñaar booy xool Albouri moo ëpp lu muy dóor arbitre yaa ngi daw di jaabante di def ay déplacement di échangeante ak ay position xoolal loxo gauche bu Albouri xoolal loxo ndeyjoor bu jeu technique ak fi mu teg bop bi ñu ngi liggéey ñoom ñaar épreuve de force ak naxante épreuve de force ak naxante la ndeysaan Reug mi ngi def ambiance rek Reug mi ngi def ambiance rek ànd ak waa Caaray Alboury gi dóor Alboury dóoraat na jeu technique Alboury Alboury tey am nga ba combat de Alboury dóoraat na ay waay ma ngay dóor ñam yi metti na de yii du ay dóoru jàmm de yii ay dóoru comédien de du ay dóoru comédien de kat de ma saf saf na ardo ardo ardo ay waay jo technique ma dina ardo waay waa Alboury mi Alboury mi Alboury soxar na waaw waaw sa turoo doo Alboury biram pet na jéeme door na jo technique ba mënatul continuer door na ko ba mënatul continuer la décision médicale de l'arbitre Alboury ngi noonu Alboury am na ndam nee na tëggal leen ko tëggal leen ko tëggal leen ko tëggal leen ko ndeysaan fecc leen fecc leen puusal waaye kon ci puusal ma ngay dem ma ngay dem tàccu leen dana dem tàccu leen tëggal leen ko tëggal leen ko mu def sabar Eh waaye déggal loolu déggal loolu tëggal ko tëggal ko nga ni dagit samba caxin taki ki giis a ah, romba cax samba cax romba ki giis taas mbat giis ginn giis ginn waaw waaw Alboury waaw ba la la Alboury waay dafa lu la neex Alboury bul jooyee Alboury bul jooyee bul jooyee Alboury Alboury bu jooyee Alboury lan la Alboury lan la alhamdulilah rabbil alamin Alboury lan la walaat yaari dama xan xol muur yaari xana xan xol mu xëy raadi xana xan alhamdulilah waaye loolu mooy la combat bi maa jël bopp newoon naa la kii TikTok moo ñu boole mais du lamb samay adversaire du ñuy xale bu ndaw préparé pare nee naa leen ne suukar du bàyyi neex ku naan benn ñaata ak ku naan saam ñaata bokkuñu du yoon sax may xeex ak bëri ñu bëri sama sama maam sama maam ndax sama maam waaw moo kenn mu saana tooñ day bàyyi man man fukk mu boole duma góor bu su ko yëpp ku mu saana yàq ay waxam ndeysaan ku mu saana yàq ay waxam di ko defaraat wala mu katt sa xool alburé alburé alburé alburé ñu bëri comédien lan la teg nga def alburi waare xara waay nga def loolu yow alburi yow lu muy wax mu xiraani ku duxan alburi foo jàngee loolu yow Moussa Moussa Diass